سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعم يدي نوي جيل زيارة جيل في جيل بالعطف نعم سبحانه وتعالى منام بالجسد يام يالا جيل بالجسد بكار نو جيل سيجي وقتاني يتعمل ورد te jëmale ko ci li ñuy tuddee amalul qulub mooy jëf nga xam ne xol moo koy jëf ak jullit bi dafa am ay jëf yu ay cëram di def waaye am ay jëf yoo xam ne ak xolam a koy te yooyu yu am solo yu mën a bàyyi xel ndax jëf bi xam ne moom la cër yi def bu baax su jëf yi xol yi da koo lal te baax mu mel ne lu mel ni yéene lu mel ne sellal lu mel ne dëggu ji nga xam ne moom lañ bëgg a mooy as-sidqu te mooy dëggu dëggu nag mooy nit ki li nga xam ne mooy ay waxam ak ay jëfam doon lu méngoo dëgg ay melokaan yu mel ci kaw yi dëppoo ak ñi mel ci biir mu doon jikko ju am solo joo ne man nañu moo gën a màgg wala bokk ci gën a ci jikko yu nit jikkoo ak melokaan yu melowoo ndax képp koo xam ne dëggu ci ay waxam ak ay jëfam bu xeet bi doon ak tabax dañuy jàpp ne moom ci móol yi la bokk wala kero yi nga xam ne ñooy yenu askan wi ndax ci dëgg ci la dund nit ki di waaye ci la dund askan wi jóge jure ci lay li tënkale nit ñi ci lay dëgëre mu am na dëggu diggante nit ki ak boroomam ak dëggu diggante nit ki ak moroomi jaamam dëggu nag ak suñu borom subhanahu wa taala moy li koy defal nga def ko ngir mom moy sellalal ko sa jaamu yàlla jagleel ko tënk ci li mo la digal waye moy li nga tere motax al imam al muhaasib bi doon ko wax ne di ko melal ni tëkku moy an ta'mal amalan la turidu ala dalika jazaan wala shukura illa min allahi taala wala tubtiluhu bil manni wal azar mooy dëgg daal mooy jëf ji ngay jëf doo ji bëgg fayu kenn wala jartu kenn ku may suñu borom subhanahu wa taala te doo ko yàq ci di ci ñaaxaate waaye doo ko yàq ci di ci gis sa bopp ak di ci loraate dëgg googu ne dëlante na ko mu sàmmonte moom fexe ba ay yéeneem a jëfam méngoo euh, dëggu nag ci li nga xam ne dafa ko dëlante dafa bokk ci jikko ci ngëneel yi nga xam ne euh, yu ab jullit war a jikko wóola moo tax suñu borom subhanahu wa taala gis nañ bari muy tàgg ñi nga xam ne dañoo dañuy sàmmonteeg seen i dël والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يلا ما مقيدة تاد نيغا خامني نوي موجو دونو اجنا دال بولا تي نيغا لين لوني تيرنت ليپ وولو دال سام لول والموفون بعهدهم اذا عهدوا دبو كي اي واخنا ak deug ci say jëm bokku na ci moom yi gën a dëgër ci diine la moo tax saxaabatul kiraam muy ña àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñuy jaayanteeg moom bokk na ca lañ jaayante moom ca loola mos Ubaada ibnu Saamit radiyallahu anhu wax na ko nee na jaayante woon nañu yonent bi alayhi salaatu ci lu mu ñu wax ñu def ko lu ñu tere ñu bàyyi ko moo xam ci aw tartar lañ nekk moo xam ci jamono yu yorom lañ nekk moo xam suñu sawar yi wala loo xam ne suñu bakkan sawuje ñu bañ xëccoo waaye nag ñuy def wala ñuy wax dëgg wax bu nekk ñu ragal kenn ku ñu yedd ci dëgg boobu kenn ku ñu yedd ci yàlla subhanahu wa taala l'islam soññ bu baax jullit ñi ñuy taqoo ak ci seeni wax yàlla subhanahu wa taala ni mu bëggee ku dëgg ci wax la ku la dëgg ci say jëf dëgg ci ay jëf nag mooy lenn lu nekk nga def ko na ko war a defee bañ caa dugal xëcc dugal bañ caa dugal ay wuy bañ a def loo xam ne kooku dëgg nañ la ko def loo wala defe woo ko anam nga gën loolee bokk ci dëgg ci ay jëf te loolu lay yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ne yàlla dafa bëgg kuy def jëf mu def ko ca anam gëm gën a mate gëm gën a xereñe inna allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu kono modat nit ki warna dugg ci ak jaamu yàlla di gëm ak borom subhanahu wa ta'ala waaye war naa dëgg ci diggam ak ay moroomam war naa ci ay waxam wala ci ay jëfam am solo gi nga xam ne am na ko solo ci aw am ko solo ci biir jullit ñi moo tax alquran dige ci lu bare bare bari mubari bari ay meññat ya. lool yoo xam ne bokk na ci rek mooy dina tax nit ki am àjjana ëllëg tamit kan bi yàlla defal suñu borom subhanahu wa taala tàgg na ci barab yu bari ñi nga xam ne dañoo dëggu ëpp na juróom fukki yoon yoo xam ne ya mi ngi tàgg ñi nga xam ne dañoo dëggu lii gis yàllaahu saadiqiina bi sidqihim yàlla ya di wax fi ñi nga xam ne dañoo seen dëggu googee rek yàlla yàlla dinañ am àjjana yu kawe yoo xam ne danañ fa biir ak xéewal ya nga xam ne tudd na ko waaye ñoom ñee ba muy daaneel tamit mooy ñi nga xam ne assaabirina wa saadiqin ñoom ñooy ñi nga xam ne dañoo muñ waaye dañoo tudd te ëllëg yowmal qiyaamati bokk na ci di jëriñ nit ki lool mooy dëggu dëggu woon qaala allahu haza yowma yanfau saadiqina sidquhum moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ñuy dëggu dana wommat nit ñi ci góor ko àjjana alaykum bi sidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljannati mu ne nit ki dana góorgóorlu di dëggu di ko jéem ba suñu borom subhanahu wa taala bindal ko mu bokk ci as-siddiqin te ku ne xam ne siddiqin yi ca daraja yi gën a kawe ëllëg yowmal qiyaama la ñuy am barab yi gën a kawe ci àjjana لينك عند الشهداء والصالحين وحني يلا إنما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا نات سخان بي ما تموي تلا موي وخ أو أي نار نحن نالولا نا ومن سواء والعياذ بالله وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا kon loolu rek doyoon na nit waxtu nekk mu jéem la muy wax dëgg ci moom te mu jëf mu dëgg ci moom ngir ëllëg moo am ci daraja di gën a doy waaye dëgg yëmul foofu ci ay njariñam ndax dina tax nit ki am xel mu dal dana tax nit ki la muy liggéey bu dëggu loola suñu borom subhanahu wa taala dafa ko ci barke moo tax yonte bi alayhi salatu wasalaam wax ne al bayiaani lil xiyaari maa lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayihima wa in kadama wa kadaba muxiqat barakatu bayihima yonte bi muy jàngale ci li jaay ak jënd waxoon na ne ñaar ñi jaay ñi jaayante อาจเจกของแรกคือสยนาธรรมปัจเจโลใหญ่มาเฟกเคนตั้งคันปูบุญสุเฟกเคนอันแรกนองแรกคืลังกวาตึกุงเจิแล้วละแรกคือใหญ่มาเคนลุจิสมรมเีอัมเคนบูรจิเนนัสินใหญ่มาเมีเดียลละเั่นเองจะได้บารบังคับว่าสุเฟกเคนลุกุลตึกุเคนลุกุจิที่มีองยาเคนคนแรกวัชโลคำเนยต้องมุ่สุนุบารุสมารุนาลาดินาฟาร์บางคับที่เซรุให nekk koo xam ne ñëpp seq ñu dëggalee suñu borom subhanahu wa taala dina leen ca defal barke waaye bokk na ci njariñ yi nga xam ne am na ko mooy xel mu dal boo dëppoo yàlla subhanahu wa taala dina la defal xel mu dal loola Xasan ibnu Ali ibnu Taalib radiyallahu anhuma moom moo ko wax ne bokk na ci mokkale ci maamam alayhi salaatu wasalaam mooy taamaa minka ilaa maa laa yuhibbuka fa inna sidqa tumaninatun wal kaziba na ci li ñu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci am njàngale moo xam ne jàpp na ko mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy sikk sàkk na nga ko bàyyi lu wóor te dem ci li nga xam ne moo la wóor li nga xam ne doo la sikk sàkk mu ni dëggu ak dalum xel la waaye aw ay nar moom sikk rek lay indi nit ki tubuhal dina tahnit ki ñu wóolu ko dina tax nit ki ñu mën a ànd ak moom loolu yàlla su alquran daf ñu dañoo digal ñu ragal yàlla waaye ñu ànd ak ñi nga xam ne dañoo dëgg safaanu dëgg rek tax na kenn ku nekk jéem a dëgg ndax ku dëgguwul benn nga tàpp ci wala yasbillah wala kasi te mooy wax loo nag mooy ngay feeñal aw jiw di ak baax te fekk la nga amul ab la loola yàlla subhanahu wa taala war ne teg ci mbugal mu méttee métti wal iyaazu billah wax ne am na jikko yoo xam ne nag bokk na ci nifaax mooy di wax loo xam ne du am arbaun man kunna fiihi kaana munaafiqan xaalisan wa man kaana fiihi xaslatun minhunna kaana فضله من النفاق حتى يدعها يجعلها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر donc nag ni mu amee solo moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu am njàng leen mu tabax ko ci ak dëggu ak dëggal daanaka mu nekk ci jikko yi nga xam ne daana ci gën a yar nit Adama mooy pas-pas bu dëggu murit bu dëggal bari na mu koy wax sifaatu saadatul murid buy waxal day wax ñu dëggu mbir mu nekk nit mën na caa dëggal mën caa bañ a dëggal moo tax day faral di melal am murit ci boo boo xam ne bu dëggu la ca pas-pasam bu dëggu la ca ay waxam bu dëggu la ca ay jëfam bu dëggu ca la mu nekk la صفات صادة المريد وحنا وضعنا القوة لعبد المريد صادة بريني فمي وحي دي مويد لو نيغا خامل نيوغي ديكل مويد لو جلدتي وحنا لو خامل أمو مويد لو خامل وحنا لو خامل لو خامل داي وراني ربو سني وروم ولا يعز بالله ربو سني وروم ويصري اللي يرمني بريني مويد لو خامل bari na kuy bëgg dara du ko am bari na kuy ñaan nangu wala yasubillah te fekk te suñu borom ko rob te la ko waral rek mooy wayafal wax lu amut moo mu ne wa huwa xabiixul muujibun isa jala laanata tazijala jalaali imaanu bila kon ne na fen mu muude wax lu da fay waral rëbbum suñu borom subhanahu wa taala mom sax bari na fu ñuy fu ñuy am na ci yenn téere yi ak yenn borom xam-xam yoo xam ne waxtu dañ koy wutal ay xeet wane ne am na woo xam ne mënees na koo nangu am na sax fu ñu naan war na dakaa war wala sibin, koo sopp wala dakaa dagan ak fu fu mu araame ak fu ñu koo di wax ne su fekkee ne dañoo nekk ci xëy lu mel lépp xare nga dem ko wax lu amul ba ragal loo yéefar yëpp ma nax leen ci ay nar loolu dafa mel ne dañ ko dañ ko dañ koo dañ koo waral wala dañ koo sopp bu fekkee ne nag alal nit nit alalam mu wax lu amul fa jot ca xëy lool wala mu wax lu amul bu fekkee ne defar defarante ab diggante la ci diggante nit ñi mën ngaa wax loolu ba defar ab diggante loolu am na borom xam-xam yoo xam ne wax nañu sëriñ bi nettali na wax yooyu yëpp ak xaaj yooyu yëpp nee na xamsatil aqsaami qas qasamul kasib fa minhum mandubun wa minhum ay mandubuhu lil harbi wal irhabi li kaafirin yuxdacu bil kizaabi waajibuhu li fakki maalil muslimi wa maali nafsihi xaqiqati dami mubaaxuhu yaa saaxibil islaaxi bayna wa maa نرغب وقال قوم كله قبيح عمنا من يبرمقون وهو في مذهبنا الصحيح من اللغة من مين نكنون لولا ما يدير قوم من لا سيدي مام رتب لي كده بوحده ما لا تلوا لي كويس أبندم خمنا مام لولا اللي تفرقه فمتى لو مت مت ما جد دكتور مستر دين دين مستر مسلا تلوخ mus la mu laaraan te mus la mu daaxana ci loo xam ne gëm na lii mooy dëgg moo tax loolee la jàngal ay taalibe ba ñu nekk ay muridiina saadiqiin loolu kenn ku nekk it te loolu la a gis sa bopp loolu la war a nekk moo tax mu ñuy ne nañuy taqoo ak dëggu ba dum ala sidqi maa nasiha wa zikri inqita daran fariha nee na yow de na nga sax dàkk ci dëggu ak di laabiire waaye su fekk su fekkee ne ëllëg tudd yàlla su fekkee ne ëllëg ragal nga gàcce kon lii tee am gàcce ëllëg mooy dëgg te ku ne xam ne ëllëg yow ba saraayu ëllëg bu nit ki doon wax te loola nekkul ci wala mu ko jëf te loola nekkul ci moom ci moom ëllëg suñu borom yow ak yaa lépp dana ko leeral yàlla yàlla aar sàmm ñu ba ñu dëgg ba ëllëg ñu am gàcce mu ne <coughs> bokk na ci euh, gàllankoor ak. ayib yi nga xam ne nekk na ci wax bu amul mooy day téye nit ki di jaamu yàlla mën na koo gàllankoor ci jaamu yàlla mën na koo gàllankoor ci tudd yàlla mën na koo gàllankoor ci jàng alxuraan boo toogee sax ba jàng alxuraan jafe la mën ngaa xalaat sa bopp ndax boo waxul lu amul ndax nit ñi danañu faral di ay woyefal loolu wax ju amul yoo xam ne dañu koy jàpp maslaa nit dana wax ak yow nga ne ko dinaa fa ñëw te fekk jàppoo ko sax dangay maslaa rek am na maslaa yu ndaw yoo xam ne euh, dangay jàpp ne maslaa la rek te fekk la nga cay waxtaan ci biir yow naroo ko ca loolu mooy bokk na ci li nga xam ne mooy wax lu amul ca loolu moo tax moytu la nee na al ghiba wal kazi mafsadani mafsadataani tamnaani min tilaawatil qur'aani wa zikri nee na di jëw di tudd nit fu mu nekkul wax loo xam ne lu ko la loola ak wax loo xam ne amul nee ay ayib la yoo xam ne dana ko tee nit ki mu jàng alquran dana mu ci diggante ak tudd yàlla bokk na ci yi nga xam ne kenn du mucc ëllëg benn ci mbugalum suñu borom te bàyyi boole muy ñeent muy alkazibu wal kibru wal buxlu wa suuxu zanni wala yasubillah nee na ñeent yi mooy di wax lu amul ak rëy ak nay ak ñaaw njort ñoom nit ci mënta mucc ëllëg def tàqaliwu tàqaliwu def ñoom ndax xal bi illaa man atallah bi qalbin salim xol bu mucc mu ak xol bu mucc te tàqalu fóota ba ñoom kenn kenn ku nekk war ngaa yar ci di wax loo xam ne moo nekk di wax loo xam ne moo di am yar sa bopp ci di jëf li nga xam ne moo moo nekk ci yow di di di dëggu ndax bari na luy tee nit di dëggu mooy ragal ku la ku la wàcce wala tax nit ki feeñal lu bokk la amoon waaye ku xam ne suñu borom mi ngi lay ci cëru suñ borom moo ko bépp cër bindeefum doomu aadama du la tax a feeñal loo xam ne nekkul ci sa biir du la tax a wax loo xam ne naroo ko du la tax loo xam ne nekkul kon yal nañu yàlla saxal ci ak dëggu yal na yàlla defal taw bi ba ñu bokk ci saadiqiin yi musal ci lépp loo xam ne mooy saxaan la mooy ak naafeq ak wax lu amul yal nañu suñu borom saxal ci ak jub saxal ci jaamu yàlla yal na suñu borom sàmm sàmmal suñu kilifa yàlla yàlla fi sëriñ Sidi Mokhtar ak wala njëriñ sëñ bi ak wala taalibe yi defal leen tawfiq ak ak mucc wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu